toppooy na booy jaayëf gars yi jaayëf soldats yi soldats yi ci front yi gis naa leen gis naa seen liggéey yee maan <laughs> yee saay <laughs> dañu gis lu ñëwagul bu ñuy ñëw naan Dakar a ngi tàkk am ni dof-dof li di ñëw di jéem a naan non Dakar fenn tàkkul tey ñu kat seen nday de tey rek la ñuy tàkk seen cottu nday ngeen xool ba xam Dakar dina tàkkam tàkkul kat seen nday booy jóg nañ de soldat yëpp a ngi ci front bi ñu ngi të dëgg sa nday ba ngeen polombe doomi xaraam yi ngeen naan gis Dakar tàkk bul gis ñu fenn fu tàkk dañuy taal ba taal seen xuuru baay yi taal ba taal seen xuuru baay yi teg ci almet laa la kos ndayam taal ndayam ngeen xam ni Dakar a ngi tàkk ngeen naan Dakar tàkku a lay jog léegi Dakar tàkk na senegal a ngi jog Dakar tak na senegal a ngi jóg Dakar a ngi poy Sénégal a ngi jóg di ngeen xam ni ku dóore mën kuy saaga waaye kuy rayee mën kuy kuy kuy kuy dóore dëgg la ñu def ba ngeen polombe seen xuuru ngeen naan ay eh, daa noo Dakar tàkkagul moo laa gars yi daan tàkk tàkkagul gars fan moo tàkk dañu kat seen chop chop copparit nday la doomu xaraam yi kat seen nday tekkiwu leen dara ñoom xaraam yi nekkoon ay enseignant ay ay ay maître école kat seen nday am ay milliards ci suñu suñu alal seen tunu nday doomu xaraam yi dinañ dëkk seen nday ngeen naan ma Matar Ba keneen la ci am yéen ñëpp la ñuy taal seen jata nday doomu xaraam yi Matar Ba da ngaa tekki lëfal ndayam eh, nekkoon un enseignant bu simple nekk ci nawetaan yi di taxawaalu sa xuuru bàyyi katt la nday kër Matar Ba kër yeneen katt leen sa nday moomuñu kër yi du seen kër suñu alal lañ sàcc Matar bu yemoon ci enseignement rek yem ci nawetaan yi bunu ndayam du ko am ndax baayam tekkiwul yaayam tekkiwul sàcc nday suñu alal tabax ci ay immeuble ay quatre quatre étages cinq étages tal leen xaalis bu yore ko moom suñu xaalis la katt leen sa nday tal leen ñoom seen kër yi am ak sàcc nday alalu askan wi tabax ci ay immeuble ay enseignant ay Seydou Sow enseignant école primaire Kaffrine yëpp mu nangu ndayam lépp mu def ko ay këram Seydou Sow enseignement primaire école primaire mu dem